gars yi man damay dégg coow lu rëy ah ñuy wax naan ibaadu yi ah di wax tariixa yi ibaadu yi yéen ku war a régler ngeen ne vous êtes yabaatee ngeen naan ay gàmmu ay bidaala ay sëriñ jaamu nii sëriñ boo deewee da ngay dugg safara boo defee nii lii bidaala maam borom Touba bu muy liggéeyee ba senegal ne cocc fan la seen yaay nekkoon ak seen papa maam Alaaji Malick ba muy liggéey Sénégal ba senegal ne cocc fan la seen yaay nekkoon ak seen papa bu du woon ak sëriñ Touba Alaaji Màggat Alaaji Malick torox ngeen bu yàgg ñëppay torox Sénégal yàqu na ni Sénégal mel yàlla ñoom a tax nga naan ay gàmm ñooy gàmm ba mu saf di màggal ba mu saf yéen vous êtes yabaate yéen ana seen fu ngeen bokk yéen yéen rek a tax Moussa Camara ak dof bi borom yàmbaay yi nekk fële di saaga di saaga tarixa yi yéen rek a nekk ci ginnaaw wa lan la yàlla wax inna allaha wa malaikatu naa la nabi yéen fan ngeen nekk xanaa yi da ngeen a dof mais vous êtes bête waaye ñuy wéruñu waay vous êtes fou salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum eh gars yi man damay dégg coow lu rëy ah ñuy wax naan ibaadu yi ah di wax tariixa yi ibaadu yi yéen ku war a régler ngeen ne vous êtes yabaatee yéen ngeen naan ay gàmmu ay bidaala ay sëriñ jaamu nii sëriñ boo deewee da ngay dugg safara boo defee nii lii bidaala maam borom Touba bu muy liggéeyee ba Sénégal ne cocc la seen yaay nekkoon ak seen papa maam alaaji Malick ba muy liggéey Sénégal ba senegal ne cocc fan la seen yaay nekkoon ak seen papa bu du woon ak sëriñ Touba alaaji màggat alaaji Malick torox ngeen bu yàgg ñëpp ay torox Sénégal yàqu na ni Sénégal mel te yàlla ak ñoom a tax nga naan ay gàmm ñooy gàmm ba mu saf di màggal ba mu saf yéen vous êtes yabaate yéen ana seen fu ngeen bokk yéen yéen rek a tax Moussa Camara ak dof bi borom yàmbaay yi nekk fële di saaga di saaga tarixa yi yéen rek a nekk ci ginnaaw wa lan la yàlla wax inna allaha wa malaikatu naa la nabi yéen fan ngeen nekk xanaa yi da ngeen a dof mais vous êtes bête waaye ñuy wéruñu waay vous êtes fou salaamaaleykum